association tous solidaires pour Porokhane di kuréel goo xam ne dañu ko sos ngir muy jàppale fondation Maam Jaara bi nekkee ci Porokhane ak daara Maam Jaara ji ginnaaw ziar bi nga xam ne amal nañ ko ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides jébbal ko ay koppar yoo xam ne dafa jëm ci wàllum parrainage bi ñu xayma ko ci 12 millions 243 mille francs CFA tolloog juróom fukk ak ñaari Maam Jaara yoo xam ne dañu leen di jël en charge ak 600 mille francs CFA yoo xam ne dafa jëm ci njaayum carte soxna jaara yi ginnaaw ziar boobule ci la ñu ñëw fi nga xam ne moom moo di ci poroxaan ci daara ji doon fi indi ay jumtukaay yoo xam ne dañ koo indil maam jaara yi mu jëm ci ay ordinateur ak yeneen i produits yoo xam ne dañu ko yitewoo Ah, di sant yàlla bu wax ba ñu dellu siwaat yàlla may nu kàttan nag mën ak wér ba ñu dellu siwaat ci daaray maam jaara tey jii ah, def nañu daan def ah, tey nag dañoo ñëw ñëw boo xam ni ñëw bu am solo ndax ñoo ngi ànd ak sunu soxna jaara sunu soxna jaara bi jógee ci région Île-de-France ñu di ko indi mu war a dugg ci daara ji ñu di ko ñaanal mu dal ak jàmm ak salaam ñu ànd ak nag mbooloo mu takku boo xam ne tey jii non seulement association tous solidaire pour Porokhane France Euh, di di di euh, mbooloo mi nga xam ne ñooy ndeyu daar ak baayu daara soxna jaare yi euh, dañoo ànd ak aussi association tout solidaire pour Porokhane fii ci Sénégal di kuréelu nooru daare ni soxna bu Bousso ànd ak sunu jëwriñ yi nga xamee ni tamit ñoo ngi nekk ci Europe nga xamee ni tey jii ñoom la ñu bokkal liggéey bi nga xam ne tey jii moom moo nu indi fii muy bagage yi nga xam ne moom la ñuy wàccee di lépp loo xam ni nag dafay yitteel daara ji muy ñu tàmbali ci li nga xam tey Euh, euh, mébét noonu nañu ko at mi yëpp ñu am ci ñaari barigo muy shampoing ay shampoing pour xale yi euh, ndax comme tey jii sunu ay mbokku taalibe yu Pastef ubbi nañ fi salon de coiffure pour xale yi war a traité seen bopp dañuy fàttali rek ni sëñ Moustapha Bassirou ba mu sampee daara ji rek lépp lu ko yit lépp lu yitteel xale yi ci ci ci norme hygiène qualité de vie lépp sëñ sëñ dañ ciy taxaw salon bi ubbee ñu nu euh, shampoing yi ñu indi ci ñaari bërigo waaw moom la ñu wàccee noonu indil nañu tamit centre de formation bi lu tollook 15 euh, 14 euh, ordinateurs ndax dañuy renforcer ndax formateur war na ñëw ren pour former xale yi ci informatique indi nañ leen 14 ordinateurs indi nañu tamit lépp loo xam ne day indi day nekk produit pour désinfecter daara ji ndax képp ku ku xam na ni fu ay xale nekk 550 soxna jaar ak ña yore nekk foofu war war naa am euh, euh, euh, ak ak ak ak cet tàmbali ko ci désinfecter lépp loo xam ne rek day day day day day day baaxul ci yaramu nit waaw loolu indi nañ ko muy produit kafaar mbóot ak puce lépp loo xam ne rek waaw mi ngi noonu ak daal yi bagage yoo xam ne daal moom ay divers le doon ndax ñun suñu mbébét rek mooy lu daara ji yittewoo rek euh, ci ay produits ñu ñu ñu ñu jëf ko mooy bagage yi nga xam ne moom la ñuy wàccee. association tout solidaires pour pour Porokhane ñëw gi bokkoon na ci sàkku siwaale ñaan ci sëriñ Isaaxa Mbàkke moom sëriñ Basiir mi nga xam ne moo jiite fondation Maam Jaara Buso bi ngir mën a door liggéeyub dortoir bi nga xam ne moom lañu sasoo maanaam bâtiment boo xam ne Maam Jaara yi dañ ciy dalloo di pose première pierre euh, dortoir yi nga xam ne moom la ñuy mbébét euh, ñaari at yi and euh, si suñu kilifa suñu sang suñu jëwriñ sëriñ Isaaxa Mbàkke ñoo ngi ñoo ngi leen di sant bu baax jëwriñ yi nga xam ne Europe la ñu jóge di fédération daayira Maam Jaara Angleterre fédération daayira Maam Jaara Belgique ak daayira Maam Jaara euh, euh, France euh, daayira Maam Jaara Paris Taysirul Assir di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. ginnaaw bu ñu leen joxee ndigal balay yàgg daañu door liggéeyub dortoir bi nga xam ne moom la ñu sasoo waaye Serigne Issakha Mbacké moom Serigne Bassirou sant na leen bu baax a baax ñoom association tout solidaire pour pour Porokhane ci seenub taxawaay jëmee ci daara Maam Jaara ji nga xam ne seen loxo du ci jóg benn yoon. waaw fan yi itam soxna Thiara bi mu àggal see moom itam ànd ak ñi Euh, xam naa yàkkamti woon lool lii bi projet bi mu jëloon mu tàmbali ko ma nekkoon koon da ngay xaar ba loolu àgg euh, bu ko defee comme danaa fa dem mën na noo àndaale sax nu nga fekk ko yow itam ndax waa moom buñ xasee ba plan xasee ba am rek jeex na léegi ku bëgg a tànn da ngay tànn loolu dana ci baax lool te itam yaakaar ne dina facilité yooyu ndax loolu itam ñoo ngi ciy bu baax a baax ndax daanaka mën nañ ne évolution daara yi day ànd ak liggéey ba ànd ak tabax yi ndax feeg feeg ñu ngi am fu ñu mën a dëkk ñu eh, mën a yokk nit ñi yéen ñëpp xam ngeen ne ni ko nit ñi bëggee demande yi dafa ëpp lool lool lool eh, li nga xam ne moom lañ mën a def te loolu li ko gën a gàllankoor mooy njàkk fu ñu leen def kon nag eh, looloo tax dortoir yi am ci solo lool nag ñoo ngi leen di gën a sant bu baax a baax. ci di ngeen ànd ak soxna Thiaré ci projet boobu ñu def fa docteur loolu itam mooy benn liggéey bi la ndax lu lu yëpp bari te amuñu suñu dëkk yi itam du mën a weesu fi mu nekk loolu tax eh, eh, évolution bi comme ni dafa war a ànd ak ñu am fi ngeen dëkkal mooy docteur yi kon nag lii ngeen def il nekk ci lii ak parce que yéen ko nekkee waaye bëgg ànd ak moom itam ci liggéey Euh, dortoir bi nga xam ne ñu ngi koy jéem def loolu itam yeneen cant la moom leen sant bu baax a baax di ñaan yàlla àggale lépp nag yàlla dinañ gën a ginnaaw waxtaan woo xam ne amal nañ ko ak plan bu yees boo xam ne moom lañ bëgg amal ci daara ji ak bëgg mbooleem bâtiment yi nga xam ne moom lañ fay liggéey lépp méngoo moo tax R plus 2 bi nga xam ne moom lañ bëggoon a tabax bâtiment R plus 1 lay doon lépp di ndigalu kilifa yi. dañ dajee tax laa ci bëggoon ñoom ña fa ñoo mën a xam ak ñu ngi ko soxlaa ci lañ lañ d'accord ne euh, jafa nekk comme R plus 1 la ñu harmoniser yooyu nekk benn mooy gën mooy gën mooy gën a yomb ba def ci ñoom ci moo gën yomb réaliser non seulement waaye moom pour surtout moo gën a <laughs> neex a gérer yi loolu nag dañ cee tenir compte lool ci loolu ñu waxoon ne mooy gën a neex a gérer ci ñoom loolu taxaw ñu ngi ci d'accord ne kon na na yëpp rek yem te loolu itam moom moo gën a neex réaliser waaye ku àggal itam mën a jël beneen nga xam ne kon daanaka <laughs> waaye liggéey bi day kon association tous solidaires pour Porokhane di kuréel goo xam ne ñu ngi ko sos ci atum 2018 ngir taxawu fondation Maam Jaara bi ak jàppale Maam Jaara yi nga xam ne ñooy jàngee ci daara ji association bi nag mi ngi ëmb ay fédération daara yi Maam Jaara yoo xam ne ña nga nekkee ci yi tugal